الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون وبعدله ضل الضالون ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم قال جل في علا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu boroom subhaanahu wa taala moom mi nga xamante ni ci ay xéewalam lay jubale ku ko soob waaye it ci maandu teem lay seetaan yenn cee jaamam ñu réer wala yusalu amma yafal te lépp lu mu jëf moom borom bi subhanahu wa taala kenn du ñu ko lam moo tax nga def lii ndax mooy faalun lima yurid mooy def lu ko neex te du rendre compte kenn wa hum yusalun bal mooy ki nga xamante ne nag amul kenn kuy taxaw kudul yàlla suñu borom subhanahu wa taala dina la audité ñu seede ne amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg kudul moom subhanahu wa taala bokkaali ñeelu ko di seede ne suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la yàlla nañ ko yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ku topp ci njubam baba yàlla suñu borom subhanahu wa taala di doon suufam si ñuy dénk suñu mbokk mbokk yi di leen dénk ragal yàlla ndax mooy yóbbalu jaam bi fépp mu mën a nekk ci kaw suuf dañuy yóbbalu nag ci ay yiw fa ñu jëm yowmal qiyaamati la fa doomu aadama di fa rëcc mooy ay yiw yu néew kon nañ ca yóbbalu te xam ne yàlla suñu borom subhanahu wa taala ku dañ kumpala ci lépp lu ñuy def mbokk yi képp koo xamante ni yaa ngi ni man de dama gëm yàlla jàppal ni yàlla dina la nattu ndax lii di shadaid yi mooy yu tar yi ak nattu yi al ibtila wal fitan ak fitna yi wal imtixaanaat ak épreuve yépp yoo xamante ni yàlla mu ngi koy teg wal mixan yàlla nee na laa yaxlu minha ahad amul kenn ci koo xamante ne nee na gëm naa yàlla di mucc ci yooyu noonu faw yàlla di la teg ay natt moo xam natt boo xamante ne nag amatan alal umma natt bu daj umma bi yépp comme la nga xamante ni moo dal suñu mbokk yee ci Gaza muy fitna gu rëy a rëy gu suñu borom subhanahu wa taala teg ci ci ci umma islam bi waaye mën na nekkit fitna goo xamante ni fitna xaasa la fitna goo xam ne yàlla individuellement la koy teg kenn ku nekk ci jaamam yi ñi wax ni yàlla lañ gëm moom la yàlla suñu borom di wax ci alquran mu ni baad auzu billahi min ashaytan rajim bismillahi arrahmani irrahim alif lam mim axasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanuun ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين yàlla mu ni ay yéen nit ñi ndax da ngeen foog ni bu ngeen nee gëm naa yàlla rek dama leen di bàyyi noonu lu dul dama leen teg ay fitna ay nattu nattu yoo xamante ni nag moom laa doon teg ñi leen jiitu woon ngir lan fa la yaalaman allahu alladina sadaqu ci ginnaaw natt yi ci la yàlla di xam ñi nga xam te ñoo dëgg woon ca wax ju ñu waxoon ne dañoo gëm yàlla wala yaalamanna alkaadibin ca la yàlla di xamee tamit ña nga xamante ni ñoom dañ koo waxoon rek bi afwaahihim seen gémmiñ ni gëm nañ yàlla fekk ba mettit bi ñëwee rek dañoo daw bàyyi ko fa ñi gën a nag rëyu natt ci kaw suuf mooy ñi nga xamante ni ñooy yonent yàlla yi ñëwoon nañ la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko ayu naas ashaddu bala ana ñen ñooy ñi gën a tar ay nattu ci kaw suuf mu ni al anbiya yonent yi summa al amsal fal amsal topp ca ña ca topp topp ca ña ca topp kon kenn ku nekk fa sa pas-pas toll ca yàlla noonu la sa natt di di rëyee moo xam natt boo xamante ne nag natt bu yàgg lay doon wala natt boo xamante ne du yàgg waaye faw yàlla dina la nattu bu ñu jëlee ñenn ci yonent yi alayhimu salaam ñu jël aadama ak hawa yàlla suñu boroom da leen dugar bil aljanna ni leen lépp lu fi nekk yéene boroom an la tajua fiha wala taara du ngeen fi xiif du ngeen fi mar lépp lu ngeen soxla mu ngi fi lenn rek la leen borom bi subhanahu wa taala tere woon mooy garab gi wala taqaraba hadihi shajara su ngeen ko laalee rek fa takuna min adalimin di ngeen bokk ñi nga xamante ni ñooy way tooñ ni seytaane nax leen kon nattu ba ñoom ñoom ak iblis lañu amaloon affaire iblis nax leen ba lekk loo leen garab gi te lam leen naxe mooy ni garab gii de shajaratul xuld la wal mulk garab gi li tax yàlla tere leen ko mooy su ngeen ci lekkee fi ngeen di sax ci lépp bi ci lu neex lii ci ngay sax ak lan al xuld da ngay am nguur goo xamante ni nguur gurul jeex la gis nga yàlla lim am nii ci ay nguur nga gis malaaka yi loolu ngeen di am looloo tax muy bu leen ko laal ñu daal cay lekk moo tax bañ ko lekkee yàlla daal di wuñ ñu seen i yére yi nga xam ne moom lañ soxla soloon ba ñuy mujj di jël ci garab yi nga xam ne ñoo nekkoon ci biir aljana ji di ci muur seen i awra wante ànd ak loolu lépp nattu bi fa talaqa aadama min rabbihi kalimaat ñoom ñaar dañoo delluwaat suñu borom seen borom ñu ne qaala rabbana dalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxaasirin jullit bu nattu nekkee ci kawam la muy delluwee du ak saalit waaye tudd boromam la ak di delluwaat ci boromam subhanahu wa taala moo tax ñu ni yow yàlla ñun de tooñ nañ ma awa adama xawa ñun nii tooñ nañ tooñ nañ la te tooñ ñu la sax suñu bopp lañ tooñ ndax yàlla mu ne li ngay def ci ak ñaawteef yàlla mu ne fa maa zalamuuna tooñu leen ma de walakin kaanu anfusahum yazlimuun seen bopp ngeen di tooñ ndax li ñuy jaamu yàlla yokkul ci nguuram gi dara liñ koy ñàkk jaamu tamit wàññiwul ci nguuram gi dara waaye bi ñu waxee loolu mu ni ñu ni wa in lam taxfir lana yow yàlla boo ñu jéggalul wa tarhamna yërëmoo ñu it lanakunanna min alxaasirin te way perte ñi la ñuy bokk yàlla daal leen sa baat yooyu noonu mooy baat yi ñu tuubee ñu tuub yàlla suñu borom daal ni fa talaqa aadama min rabbihi kalimaat fa taaba alayhi innahu huwa tawaabu rahim wa fawqa tawba alayhi qaala subhanahu summa jtabaahu rabbuhu fa taaba wa hada ba ñu jéggale suñu borom rek la ne yàlla jéggal daal di leen jubal noonu tamit la yàlla nattoo woon kenn ci yonent yi muy yaquub kon yàlla dina leen nattu ci sa njaboot ndax Yaquub yàlla mu ngi ko nattu woon ci doomam Yuusuf boo ñëwee ni ko man dama gént nekk ko gént gi mu ne ko yaa bunayya laa taqsus ru'yaaka ala ixwatik fa yakiidu laka kaydan yow doom booy sa gént gi de bu ko nettali mukk sa frère yi kon dinañ la fexeel am fexe donte nettalu wuñu nettaliwu leen gént gi texewul fexe bi am na kon ak natt la woon ci moom ci njabootam wante bi ñu ñëwee ñoom njaboot gi def la ñu def ñëw daal ni ah bàyyi Yuusuf de dem nañ doon fo bàyyi ko suñu ginnaaw tilli gi daa koy lekk ñu indi yére yoo xamante ni yére yu xotteekuwul mais taq nañ deret yoo xam deret deret yàlla mu ngi ko tuddee bi damin kasib dañoo rey ab mala rek daal koy taqal ci yére yi daal di ñëw ni ko Yuusuf de des na fa ànd ak loolu lépp moom Yaquub saalitul ak fi doom ji eggoon ci moom wante leen la leen wax fallahu xayrun xaafisa ndax xam ne leen lii de bi damin kadib la xale ay pexe la ñeenti mu leen yàlla da mooy kii wattu yàlla mooy kii wattu kon mu ngi wattulu yàlla ci doomam jooju noonu di Yuusuf wa huwa arhamu rahimin yàlla mooy ki nga xamante ne mooy yaatu yërmande kon Yaaqub alayhi salaam moom it noonu la dékkoo woon natt boobu ci doomam boobu di Yuusuf naka noonu la yàlla nattoo woon keneen tamit ci ay yonentam muy Yunus alayhi salaam di sijna yàlla mu ngi ko nattoo woon ci prison prison goo xamante ni bokkul ak suñu prison yi mais li nga ciy déggee mooy dugg prison yi nattu la Yunus moom prison bi mu duggoo moom mooy prison wu biiru géej gi ndax dañu nekk ci gaal gi ñu ne gaal gii de moom munul dem ndax am na ci koo xamante ne foo mu wàcc sinon rek gaal gi pay diig ñu bantale bu ñu bantalee bant bi dal ci moom ba muy ñetti yoon ñu ne ah nitu yàlla bii ndax si fa di feeñ ci moom yëpp mooy nitu yàlla la kii moom mënul wàcc waaye moom xam ne li nattu la ñu daal di jàpp rek wàccee ci géej gi ban ko wàccee rek jën bi daal di koy fex faltaqamul xuut wa huwa mulim mu nekk ci ñetti lëndëm lëndëmu biir géej bi ak lëndëmu jën wi ak lëndëmu guddi yi ko fay fekk yëpp mais taxul moom it mu saalit taxul mu saalit lam dékkoon natt bi mooy mu naan laa ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adalimin da doon zikkar fastamarra ala duai wa zikri wa tasbih la mu saxoon di ko def mooy di zikkar di ñaan di tudd yàlla loolu la doon def moo tax yàlla ni wala fa lawla annahu kaana min almusabbihin la labita fi batnihi ila yawmi yubaatun bu dul woon sabbal googu mu nekkoon doon sabbal ci biir jën bi kon ca biir jën ma mooy nekk bàmmeelam ba ba yawmal qiyaam di taxaw kon moom it natt yee ko yàlla tegoon la mu ko dékkoon mooy di tudd yàlla di ñaan yàlla ak di zikkar bu ñëwee tamit ci yonent yàlla ayub alayhi salaam moom natt bi ko yàlla tegoon mooy nattu feebar feebar gu dem ba ay njabootam mëntuñ koo jege ndax yaram bi dem na bay jàpp wante ànd ak loolu lépp saalikul benn yoon wala mu wax benn baat bu koy génnee ca lam daan wax bu njëkk mooy di tudd yàlla moo tax ba mu neexee yàlla wax ni wa ayyuba id naada rabbahu anni massaniya durru wa anta arhamu rrahimin moom ba ko lor bi eggee fa mu ko egg daf ni yow yàlla yow sama borom inni massaniya durru ak lor de dakk dikkal na ma lor goo xamante ni kenn mënu ci dara nag ku dul yow wa anta arhamu rahimin mu jëlli lépp delluwaat ci yàlla ba mu daanee rek yàlla nee na fastajabna lahu fa kashafna ma bihi min dur yàlla saafaral ko lépp lu mu nekkoon ci moom ci feebar ba ba soxnaam ñëwaatee xool ko daf ni kii du moom ndax na yàlla delluwaatee yaram bi kenn mu meloon aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim allahumma salli ala الحمد لله مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويمرض ويشفي ويبتلي ويعافي بيده الخير إنه على كل شيء قدير والصلاة والسلام على رسول الله الذي ابتلي بالبأساء والضراء فصبر وامتحنا بالنعماء والسراء فحمد الله تعالى وشكر ورضي الله عنه ورضي الله عن آله وأصحابه والذين اتبعوه بإحسان إلى يوم الدين mbokki ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu boroom miy boroom nguur moom miy jël ab nguur sëdd ci ku ko neex ci kaw suuf waaye moom it mooy toog ba mu sopp ko mu jeexal nguur gi ci kooku te su kooku naree fetterlu ci sax ci nguur gi mu foqati ko ci moom tanzi'u yàlla mi nga xamee ni nit mooy teg feebar ak jaamam waaye tegg ko ci saay ba ko soobee yàlla mi nga xamee nit mooy teg ab natt ci jaamam waaye tegg ko ci saay bu ko soobee yàlla bi nga xamante ne nag mooy alqadir ala kulli shay mi am kàttanu lépp yàlla mi tëlewul dara ñu ngi koy sant yàlla mi nga xamante ni moo tegoon suñu yonant muhammad sallallahu alayhi wa sallam bépp xeetu nag wante fa sabara mu daldi muñ bépp natt moom alayhi salaatu wasalaam yàlla tegoon ko it joxoon ko bépp xéewal ci kaw suuf ànd ak xéewal ya la muy rëy rëy rëy lépp fa shakara mu doyloo ci sant yàlla subhanahu wa taala yàlla ci yàlla fayal moom ak i saxaabaam moom mi ñu àndaloon ñoom ñi mu àndaloon di dékku natt ya boobu borom bi subhanahu wa taala di doon suufam si mbokk yi suñu yonente muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci période yoo xamante ni période yu diis la woon ci moom yu métti ñu ko doon wax ay amul xusn atu njàqare ngir baat bi nga xamante ni moom la alayhi salatu wasalaam bëggoon samp ci màkk mooy kalimatu la ilaha illa allah muhammadu rasulullah ñu ne ko doo ko fi waxe fexeel ko bépp pexe ànd ak loolu lépp amoon na ñoo xamante ni ñoom lañ ko doon ragalee ñoom lañ ko doon rusee yàlla teggi leen maanaam faat leen abu talib yàlla faat ko faataale soxnaam xadija ci diir bu gàtt yonente bi sallallahu alayhi wasallam nekk ci njàqare ni xaaral ma daw taif ba tey ci nattu yi moom demee ba taif fa mu amoon yaakaar ni danañ ko fa héberger ñu boole ko xale yi ak ñi seen xel des lor nga fa ba yonente bi sallallahu alayhi wasallam génnaat ànd ak loolu lépp yàlla suñu borom du seetaan jaamam su su ko tegee nattu lu dul da ko fa fekk tegal ko natt yi inna ma al usri yusra yàlla la mu ko dëfalee ca natt yooyu noonu mooy da koo yëkkati ci tukki bu yéeme boobu muy al isra wal mi'raj jox ko kado bi gën a rëy muy kado julli naka noonu it la nekkoon ci ay nattu moom ak saxaaba yi ñu leen di teg bépp fitna di leen xas di leen saaga ba dem di rey ñenn ñi yàlla suñu borom joxaat ko ndigal ngir mu gàddaay jóge Makka dem Madina ba mu ñëwee it waa Madina teeru ko teeru gu rëy dëkkal ko dëkkoo ko ànd ak yooyu yëpp ngañaay bi ko yàlla jox muy ngañaay bi gën a rëy mooy fat ko Makka mooy tijji Makka delluwaat fa nga xam ne fa lañ ko waxoon ni fii doo fi waxee la ilaha illallah muhammad rasulullah fii moom du fi sax yàlla defal coalition bu rëy defal ko fat wante mbokk yi ana lan la ko yàlla dékkuloo yooyu lay xéewal yàlla mu ne ida jaa nasrullah bu yàlla ñëwee ak ay xéewalam ngañaayam nee na ida jaa nasrullah wal fat ak fat makka ubbi makka wa raayta annaasa yadxuluuna fi diinillah nee na nag ci ngay gis nag nit ñi di daw di dugg ci ci islam bi afwaajan ay kuréeli mbooloo ku ne di ñëw ndax neex na nag mu ni ànd ak loolu nga am lépp ci ay ngañaay fa sabbih bi hamdi rabbi na ngay sant sa borom wastaghfiruhu te di ko jéggulu innahu kaana tawwaaba ndax yàlla mooy ki nga xamante ni mooy kiy jéggal yàlla ñu yàlla jéggal mbokk yi nattu mën naa dal ci jaam fekk yàlla da koo teg mu nekk ku faqiir ku ñàkk ñàkk egg ci ngay luye la ne sa bopp mooy lan lay fayee sama location bu weer deewee ànd ak loolu xanaa njaboot gi duñu am luñ dundee loolu ba tey nekk ak njàqare sa bopp ak feebar yi dal njaboot geek lépp mais loolu lépp mbokk yi alfaqru lay sa bixaar ñàkk du gàcc yàlla moo ko teg ngir natt la xool nan ngay dékkoo natt bi bari waa na ñoo xamante ni doon nañ dund boobu situation ba bi xéewal gi ñëw fekku leen fi faatu nañ waaye yàlla fay ko seen njaboot ba fay ko seen i sët sëtaat loolu lépp ci dékku nattu la ci di sàbbaal suñu borom di ko jaamu ak di ko nangu lépp loo xamante ni moo ko yeyoo moom buur naka noonu it soxna si nekk ci ci ñàkkam borom kër ba dem ba am 30 ans 35 ans jàpp ni man daal léegi moom saye xaar ma jàdd yoon waaw ndax nit nga xam naan jëkkër moom alxayr du ma ko déggaat yàlla mu ni bul bul xaddi mukk ay épreuve la yu la yàlla tegal na nga nangu épreuve yooyu noonu ndax suñu yaay Khadija radiyallahu anha amoon na lépp sauf bonheur avant muy am 40 ans di ànd ak yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi da ko yàlla defal lim ko defal kon yow mii di nga xamante ne yaa nekk ci boobu leen natt tamit na nga dégg ko natt boobu noonu te xam ni borom bi subhanahu wa taala buy ñëw ak ay xéewalam dina egg ci min xaysu laa yaxtasib fa foo ko dul foogee naka noonu it ki am ay bakkaar toggo ay bakkaar yu bëri ngir ñàkk a xam yu bëri yoo daan def muy ay bakkaar yoo daan togg yàlla mu ne bul xaddu de bul xaddi bul def leneen ginnaaw bañ la xamale ne ne ah lii mooy li baax nga xamee ne ah kon li ma daan def lee baaxul woon nee na na nga delluwaat rek tuub ndax mu ngi wax ci alxuraan ni yaa xasrata ala qul yaa ibaadiya alladina asrafu ala anfusihim yow yonente bi salaa sallam waxal sama jaam ñi nga xamante ni dem nañ ba jàpp ni dootuma leen jéggal laa taqnatu min rahmatillah bu ñu jàpp ni mukk yàlla du leen jéggal ndax inna allah yaxfiru dunuba jamia yàlla dina jéggale bépp bàkkaar bu dul bokkaale bu dul da nga kaa tuub tuub bu sell kon yàlla ñu yàlla mayu xolu ñuy dékku bépp natt buy gàllu suñu kaw ginnaaw bi ñu waxee ni ñun dañoo gëm yàlla yàlla ñu yàlla defal digg ak topp ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا الى صراطك السوي صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قوموا الى الصلاه يرحمكم الله